cëkk Baba Ndiaye mbaa yéen a nga ca ginnaaw élection présidentielle yu jàppoon 25 février te ñu bëtal ko ba 15 décembre 2024 gi bés bi le na moom njiitu réew mi Macky Sall ginnaaw dogalam gi amal na conseil des ministres bu njëkk ci teewaay premier bu Sénégal Amadou Ba ak gouvernement daal bu Sénégal yëgle kaay groupe média bi ne ginnaaw pression nationale ak internationale yi yëpp ma ci kaw moom président Macky fa mu jàppoon daal bàyyi ko déedéet ndaxte Amadou ci bés bi le jour tollati confiance am dëgg ci Amadou Ba premier bu Sénégal mi war ba dugg tamit nangu dogal président Macky Sall bi ginnaaw élection yu dàq ma ngay manœuvrer de ma ngay manœuvrer de ndaxte ne na kay bëgg-bëggam dëgg mooy dal jàmm daal am ci Sénégal waaye tamit jubóo national daal am ci réew mi ngir gën a mën a sàmm jàmm jeeg jàmmo gi looloo tax muy woote dialogue ci biir réewum Sénégal te nag sàkku na ci gouvernement bu Sénégal ngir mu jël matuwaay yépp ngir loolu antu le témoin ne moom njiitu réew mi kay tollanti na confiance am dëgg jëm ci premier ministre waxtu wi daal mbiri seetlu ci koom ndax bu dee l'opposition bu Sénégal koy ërtal ci biir boor ak communauté internationale bi ci bee boor ginnaaw élection présidentielle ñu dàq moom président Macky Sall démb sàkku na ci gouvernement bi ngir ñu jël matuwaay yëpp ngir élection yu amal ko 15 décembre 2024 lii yëgle kaay bi ne moom président Macky Sall kay namuta mukk deltu ginnaaw ci mesure bi nga xam ne jël na ko dàq élection yi nga ñàkk yëg ay candidat l'opposition bu Sénégal ñoom ñëpp booloo doon benn say ne dañuy wéyal fépp ci Sénégal seen campagne gi ndax ne nee nañ élection présidentielle kenn du ko dàq ndax dañ koy amal par la force doole mbaam février gi ñu dëgmal ba noppi joxante daje ñoom ñëpp ëllëg ci aljuma gi ginnaaw julik aljuma gi ba noppi ngir fas yéene amal manifestation wu ci Ndakaaru moom AMD di Aliou Mamadou Dia ci mu laaj dinañ ko def ba mu Sall xam ne ragaluñ ko te ñun duñu ay ragal duñu ay bukkat pour muy leer te lépp lu mu laaj laa wax ni ngir élection ñu amal ko ci weeru wi dinañ ko def mu jeex takk laa wax libération ne Mouhamed Diop Binta Ndiaye Gueye Cheikh Dembélé Fatoumata Ba ñoom ñëpp ñu ci kaso bi ay waay lii tamit mbaa jàmm la te ay ndaw la ñu ñoo xam ne ñoom ñëpp ci réseaux sociaux la ñu nekkoon jàpp nañ leen benn par benn tëj ci kaso bi bés wi le jour ne jamono jooju nag gaay ñu jàppoon tëj la ci kaso bi ci weeru juin ginnaaw manifestation yu ñëpp ñu génn dëgg mooy est-ce que jiital Pastef Ousmane Sonko dinañ ko bàyyi mu génn am déet moo ñu jaaxal laas ne njiitu réew mi Macky Sall ma ngay manœuvrer dëgg ubbi yoonu dialogue bi ne ci Sénégal ginnaaw élection yi mu dàq moom président ne tullante ne confiance am ci Amadou Ba te gaay tëjoon ci kaso ñoom ñëpp ci tëji leen la ñu jëm foo soobee élection président Macky Sall dàq ba 15 décembre nag moo merlo ba futu candidat yi Sénégal ba tax ñoom loolee duñu ko seetaan mukk muy law ci Sénégal ndax dañ ciy teer a jug mu dàq Cheikh Tidiane Dièye ba ci rebelle kay ñoom ñëpp ñu doon tuumal ci waa borbe ñu ngi ci côté njiitu réew Macky Sall moom Cheikh Tidiane Dièye ñu doon di Ousmane Sonko ak i naataangoom loolu dara amu ci ndax ku bëgg a dégg dëgg kay xamal ni li doon waxal njiital Pastef lépp mu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar la bujo mam booy jaaw ne situation bi réew mi nekk waxtu wi nag saagara dëgg ci Sénégal gépp la lay wax AMD di Aliou Mamadou Diané dinañu du jàllu ndax élection présidentielle yi dañ koy amal ci nii mbaa ci naaw muy taw muy naaj wala muy ngelaw février 2024 le kuréel gu yees juddu na ci réew mi di f te moo ëmb mboolemu candidat yi l'opposition bu Sénégal nekk te ñoom ñëpp nee nañu yu dàq ba 15 ci ëllëg te xeex bu saf mu lañuy sàpp ci Sénégal ngir président Macky Sall daal dellu ci ginnaaw turbine yéene kaay nañ ko wax dee ndax li am diggante njiitu réew mi Macky ak Amadou Ba mi mooy àndanoo rayante tàggali mu jël moom président Macky Sall dàq présidentielle yi lé candidat bi kay ñoom ñëpp ne kon ala accu amul bàyyi amul dellu ginnaaw ndax seen bëgg-bëgg dëgg mooy xeex dëgg ngir moom président Macky Sall deltu ginnaaw ci mesure gi mu jël yéegle cabinet muy syndicaliste yi di kilifa diine ba ci kilifa aada yi ñoom ñëpp taxaw nañu tam gi jël réew mi ci loxoy Macky Sall yi Walf Fadjri jox Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifu lew na ñaseen mu ne nguuru Macky Sall bi kay sa fini abaara a tàkk la lay wax moom xalifi ne ne mesure bi kilifa yi jël tëj Walf Fadjri teguñ ko ci dëgg xanaa kay ci injustice waaye daal lii dafa war a dàq yëglekaay bi ne nga yëg nga ñàkk yëg askan wi ëllëg ci aljuma gi dañoo nar wàcc mbedd bi fësal seen mer seen nakar ginnaaw lii xew ci Sénégal ndaxte nee nañu kon lii raam ci ñag wi la jëm te duñ mukk mu ci àgg les économies makkeeg Amadou Kay komburoog soow bés bi le journée ginnaaw ndogal gi mu jël dàq élection yi bëtal ko ba 15 a candidat opposition bu Sénégal kon heurtal ci boor bu ne président Macky Sall nee nañu kon te lay gën a taxaw te mu seen jàppale ak seen engagement jëm ci président Macky Sall ak premier bu Sénégal doon candidat coalition Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba yëglekaay groupe immédiat bi ne Moussa Sow ak naataangoom nee nañu seen tour de feu et sécurité la ñu doon ci wetu président Macky Sall ndaxte nee nañu kon balaa nit di ci kaw foog jaar seen kaw ba noppi démocratie laata muy confiance am ci président Macky ndaxte moom Ibrahima Ndiaye nee na ci montre président Macky Sall ko réglé laas ne waa parti démocratique sénégalais kon ñu koy dëcc ànd porte-parole département bu Amérique ginnaaw kàddu yu mu yëkkati ci élection yu dàq ñoom waa PDS yamu ca ndaxte nee na ñoom seen bëgg-bëgg dëgg mooy wutu conseil constitutionnel bi fi nekk report élection présidentielle yi sur quotidien ne ci loxo am ci prison bu rëbës parents yi nag ñeneen li sàkku dëgg mooy leeraange daal ginnaaw fitna gi ñu naan moo colli ci rëbës mboolem këru yëglekaay génn ni que tey jii njuumali ginnaaw tëj ak tëj gi mu nekkee ci réew mi ak mesure gi mu jël tëj daa bool fajri yëglekaay yëpp ne moom Moussa Bokar Thiam kay waxtu wi tam ëpp na koy buum ginnaaw taxawaay gi mu amee ci réew mi Sénégal l'évidence ne Moussa Bokar gi mu jël tëj rapport fajri ñu ne déet na waaye internet bi li xëdd kaaba gi nag mooy kaddu yu mu jot jagal ko nitu daara ci réewum Sénégal laas ne juróom-benn fukki kaa ak juróom-ñetti ñoom ci géejawaay te mbir mi nag amul tànk ginnaaw ndax boo sagane kanam la jëm ñu def ci bés bi le jour waxtaane accident bi doy waar bi amee ci yoonu Tuubaa bi le soleil ne Ngor Wakaam Yoof jàpp Cambérène ñoom ñëpp ñu ngi ci waajtaayu appel Seydina Limaamu Laay bi ñu jàpp fukki fan benn ci weer wi ndax gi yéegle kaay bi ne juróom-benn nit ñoo ci ñàkk seen bakkan ñaar am gaañu-gaañu tar l'observateur ne ginnaaw accident bi nag amee ci benn mbaam bu doon jéggi nag moo waral musiba gi mais da ngay seet loolu rek